jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di am kontante ak mbégte ñu ngi fii ci fi nga xamante ne mooy stade bu Malika ki ñu fi woo di général bu Malika di def open press am dox digganteem ak fils de Balla le 24 fële ca stade Diom Iba Mar Assane Ndiaye Baol production moo ko organisé. mu nekk ñaari combat boo xamante ni combat ñaari xale la waaye xale yi ñaar ñu am jom lañ démb euh, Fils de Balla xas-xas loo na wax na sànni ki nga xamante ne mooy général Malika général Malika nag dafa war a tontu dañuy dugg ci biir stade bi xool ñi nga xamante ne ñoo ànd ak général Malika xool ñi nga xamante ne général Malika moo leen tax a jóg ñu ñu laaj leen xool nan lañuy ñuy préparer combat bi kaay am na ku ma fi gisoon. beneen t-shirt bu weex bu ñu génnee. Adama ñu koy jox général Malika. Mbaye Sane bis daa mel ni am na fu mu toll. xale baa ngi noonu doomu Malika baa ngi noonu xale la boo xamante ni mën na foo bi bëgg na ko gëm na li muy def moom général Malika ndaysaan xale la boo xamante ne làmb jox nañ ko cër xale la boo xamante ne làmb jox nañ ko wàll ndaysaan dégg na loolu waaj a wàcc ndeysaan Adama doomu Malika baa ngi noonu di waaj a wàcc ma ngay wax ndeysaan ma ngay wax am na butéel yu mu yor ndeysaan général a ngi ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu ndeysaan min na lii bis bu ne xale bi bëre na ko ndeysaan gis nga amandoo yi gis nga xarit yi am na lu ñu ko tegal ndeysaan nee ko tànk ndi ci bopp bi masaa waa ndeysaan ma ngay wàcc ndeysaan général a nga noonu koy ndeysaan ma koy moom wàcc na nga wàcc na ci oto bi Adama jiital na tànkam di joor ba ma ngay léem ndeysaan ma ngay <laughs> cey làmb ma ngay Adama ma ngay léemu. duggul de ma ngay na jiital na tànk di joor bi. dugg na. Adama Général dugg si na ci stade bi. Adama Général dugg si na ci stade bi. Ndeysaan Général si na ci stade bi. Adama kaay xool kii. Adama xool ma maa ngi sa droite Adama kaay. waa kii lu mu yor ay yow ba ñëw na ay général ngay dóor ay gauche droite xabtal ba ñëw na général ràngoo na yeew bi général ràngoo na ko hee lii ñemew ma ndànk ndànk ndànk ndànk ñoo ko jàpp nga xam nga mooy loolu Sénégal soxla ko ñu indi ko waaw noo ko demee waaw bu baax a baax a baax eh, ñoo ko moom eh, daaw naa sama dimanche du yomb Fils de Balla bu ñu ko jàppee barki Alxuraan mu ne lépp dëgg la barki Alxuraan Fils bu mu xam ne lépp dëgg la barki Alxuraan kër gi ñu ah. gis ni lii blessure gëj ko gis ca Ama Baldé waaw ma bàyyi ñu ñoo moom ñu suñu yëf nga ñu yëf Ama de suñu yëf nga ñun barki Alxuraan kër gi Fils de Balla bu ñu ko jàppee mu xam ne lépp dëgg la dimanche. rangal ma ko fadal ma ko rangal ma général Jigol Maaj général baa ngi doog a ñëw ayca général eh général Italie di nuyu waa Espagne di nuyu Modou kon sama xarit borom Italie di nuyu Ahmed Fall Zoungale borom Espagne di nuyu staffu général bi yëpp di nuyu képp kuy suma soppe ñëw fi ndax man di nuyu presse bi fi teew yëpp tamit di nuyu suma adversaire Fils de Balla. combat bi yàgg na daaw la woon. daaw man mi jël si naa la sa kër. ñu def fa émission ma ak yow. Mhm. combat bi dañ ko waaj yegg si na. tey lan ngay wax ñi lay seetaan nga xam ne tey gëj ñoo na gis général ak nan la waaj bisam waaw liy faral di wax rek naan loo naan loo loo bëgg mu yegg si loo naan léegi yegg seegul rek bu appal bis comprendre nga comme yàlla dogal na jàppal nañ nu date ñëw nañ la le 24 lañ wax ñu ngi ci tey lan vendredi le 21 ñu ngi ci jeudi le 21 mën nañ ne ay fan a ci des. di sant yàlla di ñaan yàlla suñu borom kàttanal ñu suturaal ñu ba dimanche la 24 yàlla suñu borom may ñu ndam ci kàttanu suñu borom. général jox ko jox ko waaw waaw démb dañoo dem mhm. seeti fils de la mhm. ñu gis état de forme bi mu am mhm. yow ñu gisoon la avant covid bi état de forme bi nga yor mu mel ni da ngaa wàññi poids lan moo tax nga wàññi poids waa dara waralu ko lu dul liggéey maanaam am fu ma nekk am ñu ma yaakaar am lu bëri lu may xaar ma xam li gën ci man dem defi ko ma yëg nii lii mooy li gën ci man ma def ko rek ndax lii nii man jàpp naa ne mooy li war ci man moo tax ma def ko voilà. dañu ne cinquante cinquante la. Hmm. yow yaa moom cinquante bëre bi. Hmm. moom moom cinquante xeex bi moom mu ne moom moom cent yëpp moom moom xeex bi moom moom bëre bi te bu at bi ne prix mu ne la tegal nga teg di ko teg. amul problème mën naa ko jox cent yëpp na jël xeex na jël bëre waaye bu làmb jaa la fay neex man maa koy def. Hmm. xam nga moom ci làmmiñ dafa neex nga taxaw nga ne yaa moom sang ne yaa moom xeex yaa moom bëre dama la koy jox ci làmmiñ waaye bu bis baa làmb ja la fay neex maa koy def ci kattan suñu borom mais li ñëpp ne général mooy favori ci bëri bi est-ce que du def pression ci yow. non gëwuma loolu de ay affaire de favori yooyu yëpp amul man damaa jàpp ni bu ñu ma joxoon yaawu jaal ma war a bëri ak moom tant que waruma ci kawam amul favori ndax mbër la may mbër day xëy di entraîné may xëy di entraîné li am solo mooy dama koy ñaanal jàmm di ñaanal suma bopp jàmm di ñaan bu la 24 heures suñu borom may ma ndam te daa mel ni sax affaire yi yegg na ndax yaakaar naa démb ñaanal na ma ndam di ko wax ñaanam yàlla na nangu voilà mais est-ce que loolu du daa juumoon rek ci biir wax. xaw ma lu mu doon de li ko ko wax loo ba tey man xaw ma ko moom xam ma ko comme daf maa ñaanal nee naa ko amin ci ndam boobu mu ma ñaanal ñaanal de. waaw moom laa ko ñaanal. voilà. Euh, barki démb pare national gis nga leen dañ faa ñëw. quatre combats quatre victoires. Mm-hmm. mu mel ni géejawaay dañoo booloo ñoom ñëpp doon benn. démb gis nañ ko ci open press mu mel ni tey fi mu toll nii nee na géejawaay fi ñu tolloon. ci làmb foofu la ñu tolloon te du yow mi yow yaa koy téye parce que da nga dugg géejawaay am fa ndam. Mm-hmm. ci diggante moom mbaytin mm-hmm. nee na boo njëkkee woon ci moom doo laal keneen. da ngay génnaat géejawaay wala da ngay des. kan war a bëral. fils de Balla. fils ma koy xamal ni amoo fa mu dëkk. wallaahi al azim ëpp ma fay mbokk. ña ko nag jarul woon muy tuxu di dem di loué ji néeg di demaat mooy loolu noonu. daa loué daa loué actuellement di tuxu di jéem a changé ne ko moom foofu ëppale wu ma fa ay mbokk ëppale wu ma fa ay nit wallaahi al azim saa bu xëyee. ci li muy dox chaque jour matin soir man xam naa ko. dama ko ñeewantal ndax tout tànk la yor damaa gis ni doom bu ndaw la yor buy dem day jàpp ci loxoom di ko yóbbaale loolu rek laa ko ñeewantale loolu la xamal loolu lépp da nga koo toppam da nga moom laa lay wax fa mu dëkk wallahi al azim samay mbokk yu ma bokkal deret ñu fa di yeewandoog man man daraam ump kon moom géejawaay googu muy wax ëppale fa man chaque jour maa ngi géejawaay keroog bañ defee signature ba tournée géejawaay laa jaar amoo jaar védéen bi ñibbisi kon foofu ëppale ji naan leen général seen doom nee nga jàppale ko comme neen ko daan defee sama nitu bopp fa nekk avant fils de Balla bu baax mënu cee ñàkk. di nga samp jaaga jaaxal su ma su ma wanee ginnaaw ñu jël sama reliquat wala ñu xool moom ndax boobu léegi coow li bëri na am na ñu nekk ci ginnaaw naan dañuy teg di leen wax lu ñu bëgg nañ ko teg bu làmb jaaku arrière wax ma sax balaa daan arrière wane ginnaaw rek ñu ñu dagg sa xaalis wala ñu teg ñu xool. xam nga li mu wax dafa rëy. Mhm. daf ne boo xeexee mu wàcce la. boo bëree mu dàll dina même bëree bi mu naan mooy favori sax bu bëree xeeb boppam. waaw mais loolu yeggaguñ loolu la wax loolu yeggaguñ ci moom dañuy xool lu mu fi wane ci bëre ak man li mu fi wane ci bëre ndax bokk na. moo daan tax. maa lay ziar bu baax a général bii mooy troisième fois ngay dugg géejawaay ndax da ngay wéy di fa teg 16 ba wala lu man di xew. ak lu am ak lu mënta xew daal man géejawaay su may mboq ma fa nekk te géejawaay adversaire laa fa am Fils de Balla moomul géejawaay ëppalewu ma géejawaay Fils de Balla laay bëreel maa ngi ñaan yàlla may ma ci kawam xasuma waa géejawaay balaa mee ma waa géejawaay ndax su leen xasee xas sama bopp comprendre nga du ma journée wala te dugguma géejawaay li am solo daal mooy képp ku ko mën ta dooleel képp ku ko mën a jàppale ci pind ba ngay yem wàllum teen la kenn du dugg ci biir géew bi géew bi mag Fils de Balla la général ak Fils de Balla mhm. euh, ba en même temps athlète boo xam ne dañ la war a yóbbu ngay compétir. Mhm. ñaar yooyu boo leen di boole dina yomb. waaw dina yomb kay vraiment ndax man nee naa lamb mooy suñu métier. te dul compétition boobu chaque jour ñun lamb li tax sax ren mu demee ni man dama daan bëre tournoi ba mu des ay jours jours sama combat ren ma soog cee concentré wu dem bëre kon bu yàlla dogalee ren simple bi yéex ubbi ñu convoqué ñu tournoi CBAO ñu nekk fa di entraîner loolu man yokkutale ci man di profité ci occasion bi di nuyu xarit yi fa fa nekk ndool ñi ci gën a kawe ñi nekk ci kaw ba ci suuf képp kuy mbër ma nekk ndoog yow fële regroupement maa ngi lay sant di la gërëm ndax gis naa taxawu bi ak yéene yi 66 ba ci 120 kilos ñëpp a may ñaanal di ma yéene jàmm di ma ñaanal ndam kon ñoom ñaan goog ñi may ñaanal maa ngi leen di ñaan yàlla na ko suñu borom nangu ndax ay nit yu ñàkk ki ñaan laa fa nekkal vraiment voilà. aja général ba tey ci question yi rek promoteur bi leen tëgg mën naa ne presque seen morom la ci côté mobilisation bi général fan la ci toll parce que promoteur bi moomu ko déen donc nee na ma ku ci daan mhm. wala ku ci ëpp ñaar dina borom gis nga damaa war a def open press te nee la man yëmbal la ma séq Kër ma Massar benn baraak àll ba ñaax montagne waa Mbëbës te maire yëmbal daaw da Ndiaye dafa nekkoon ci yoon bi di ko ñëw di ñëw di profité ci occasion bi di ko nuyu di nuyu suñu papa Ndiogu Saw moom it ci dëkk bi la nekk di ñu jàppale comprendre nga di nuyu monsieur le maire di nuyu Talla Talla Gadiaga di nuyu Laye Diop moom it daf ñuy jàppale bu baax a baax di nuyu képp ki nga xam ne def nga déplacement ñëw alaaji soirée mi def déplacement moom it ñëw maa ngi koy sant di ko gërëm ak meer Kër Massar euh, Tafa Meng daf may jàppale te suma nit la Kër masaar la nekk te ñun ci département bu Kër Massar lañ bokk. li am solo daal mooy bu bis baax su leen neexee ñu xool kuñ fa ëpp mbooloo ku ëpp mbooloo yàlla na ko yàlla may ndam. bu ma duma ko. bu bëree ma daan ko loolu amul leneen. fils de Balla ak loo koy wax. fils de Balla li ma lay wax mooy. lamb ji jàpp nañ ko deux ans mu am ay ndog ndok maa ngi lay ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm di la wax ku baax nga nit ku gore nga nit ku yaatu nga ñaan bi nga ma ñaanal gis naa ko di wax yàlla na sa gémmiñ am barke ndam boobu nga ma ñaanal yàlla ma ko suñ borom may amul leneen di woo waa Malika yëmbal benn baraag waa Buun waa Kër Massar waa Alba Ñaax di wax sëñ Ablaye Diop xaas sama nit la sama sëriñ la sama waay la te lamb ji nee ko lambam la te daf cee war a jàpp bu ci jàppee daf cee war a jàpp ci jàppul daf cee war a jàpp jeu technique lamb ji lambam la comprendre nga yi nekk diggante Malika benn baraak chauffeur yëpp maa ngi leen di woo ba Bambilor mécanicien camion yi Talla Diop suñu grand maa ngi koy woo Mbodj chauffeuru sareet man ñëpp nekk sama ginnaaw mafia ma may àndal nii lamb ji dañ koo ndax ku ni déggoon na ma ne du ma bëre seen ñaar fukk seen cent franc ma mbër am demal ñun yow lañ am te lambay sa métier wallahi azim ñoo ma mayaat courage ma jëlaat lamb ji bëre ko su ma ko bëree rek à cause wallahi azim di wax nag képp kuy suma soppe maa ngi naan leen la 24 na ngeen ñëw dooleel seen frère seen doomu ndey seen lépp mafia bu ndaw beeg gaa yëpp maa ngi leen di woo Ahmed Fall Soungheulé Ahmed Fall Soungheulé sama doomu ndey borom Espagne toog suma xarit la am am boole ñu dafa am garant bu baax bu nekk sama ginnaaw Ousmane Diop Boson mu may seetaan dafa dégg combat bi woo ma def ak man teraanga bu lëy boson naan la ni ko defee rek noonu la combat bi sa combat la di wax kontaan naa ci yow. bëgg ñëpp rendez-vous bi mooy di ñaanal ñëpp jàmm dox na gars yi ci non violence. comprendre nga yaa ngi may dégg ndax lii dafa rafet man gis nga ma waa Malika xamuñu violence ñoom dañuy ñëw ci jàmm dem ci jàmm di wax fils de Balla maa ngi yow ñoo a defar làmb ji. am na ne boo ko waxee su ma ñëwee lamb ji mën naa metti man am na ne bu ma ko waxee lamb ji mën naa comprendre nga di wax nañ ñëw ci fair play ndax waa Malika yëmbal benn baraak buun kër Kër Massar ba ñaax montagne bu bës ci fair play lañ leen wax comprendre nga di leen wax ñu ñëw ci fair play samay soppe ñëw ci seer fair play ñëpp ñëw ci fair play loo wax bi presse bi di leen sant naan leen taxawaay bi rafet na ndax teel nañ fay ñëw toog nañ patienté ma ba ma ñëw ñu jël liñ jël di rafetlu ci yéen naan Ablaye Diop Xaas sama sëriñ lamba ji lambam la di bëgge sama gaa yëpp di bëgge waat ñëpp di wax ku lim da ngay juum vraiment coach su équipe Malika